je voudrais ci wolof sant sunu boroom sant ko ci bu baax ci li mu defal réew mi guddi ak bëccëg borom bi ay élément wu couple rekk ci lépp lu mu sàkk noonu la koy doxale ku gis guddi war nga am yaakaar ni bëccëg ngi ñëw

lu doy déroulé wu nii na ci aduna ci histoire nation li am candidat bi ñu lance élection nekul téwul yalla def candidat bi nek ci prison nek ci lendeum wante borom bi ni moy borom sénégalais yi nañu am nañu fulla am nañu fayda Paré ne jiital ko xex ba tey ji lii am leçon bu doy war la moy woné nañu ni ndekete Sénégal limu xif moy éthique ak bonne gouvernance du stade yu rafet du avion du lampe du rafet du lenen lu gouvernance ak éthique moy la denrée la plus rare te sénégalais woné nañu ni lool lañu ñu bëgg wane nañu tamit

li ci gën am solo moy li ñu leen di présenté tey jii et sciemment mënoon nañ tamalé ci caravane mënoon nañ tamalé ci xumbal wante bi pour liñu ñu sénégalais yi ni dañu bëgg un changement bi ngeen ni xaar woné ko taxaw temm depuis lors ñu né nañu tamalé mbir bi nonu di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm bu baax di sante leader yo xamni ñom ñoo nekk ci biir coalition bi di accompagner président Ousmane Sonko di accompagner président Diomaye Faye depuis lors mu am ñoo xam ni bàyyi lépp ñëw taxaw dugg ci jàpp ci am ñoo xam ni biñ leen recalé seen xel yépp dem ci Ousmane Sonko dem ci Diomaye Faye am ñoo xamni xex bi fi mu toll ni tous les jours ñuy enregistrer nit ñoo xam ñu ngi ñëw ni dañuy jappalé ci le président le candidat Diomaye Faye di len sante di len gërëm sen alal sen doole sen xam-xam ñu jàmm ñu ngi joxe sen bop sen doole lepp lu ñu am ñu ngi koy joxe simplement pour que Ousmane Sonko fi mu nekk na le gi mu depuis 2014 ba léegi mobilisé neen ñu ngi mobiliser wu ñom leader pour simplement donner du sens aussi à la démocratie donner du sens au combat mené depuis lors J'appelle nous le candidat le président Bassiou Diomaye Faye di sante ñep di jéxalé nak fenn mooy yalla may nañu ndam ba paré may nañu popularité kuy sante yalla da nga ñëk commencé reconnaître lim la jox du candidat, du modestie la humilité la mais nak yalla loolu bëgg nga xam nga wax lo xamni lim ñu jox popularité

et enfin nous, avons wax sénégalais nous ba léegi am ñoo xam ñu ngi nous ba léegi ñoo ñu ngi gouvernement ba léegi am na ñoo xam ne daanuñu bàyyiguñu xeex gi kon ngeen vigilant vigilant quinze jours 15 jours de mobilisation 15 jours de vigilance Yalla, ñu yàlla